Eh, nekk jëwriñu femme diaspora bi si biir Touba sa kanam waa ñu ngi lay jaajëfal bu baax di rafetlu question bi nga posé ah xanaa ñu ngi jaajëfalee journée bi rek santaat Serigne Touba Cheikh na Ahmadou Khadim suñu yaakaar tey ak ëllëg di wax ne Mbàkke teyam bu ne day gàcceel démbam li am fi tey wane na ko alhamdulilah la ñuy wax ñu ngi si soxnay diaspora bi ànd ak soxnay Dakar ak soxnay Touba sa kanam yu Touba yi di wax ne daal ñun suñu xëy suñu wontu suñu suba suñu guddi lépp dañ ko jébbal Serigne su Mbacke parce que kenn du Ahmadou borom jaam yi li metti yëpp Mbacke da koo jël ñun asaka bi rek la ñu bàyyee ba tax na nag lu ñu mën ak lu ñu am yëpp fas yéene ko jox Serigne Touba rek di ko liggéeyal yàlla na yéex ba keroog ñuy sàngoo suuf waaye ñoo ngi jaajëfal waa Dakar na macha allah jàmbale ko si suñu mbokk soxna yi nekk Touba sa kanam ñoom tamit ñu ñëw jàpp si joxe ci seen participation bu am solo mënoon nañ ne si diaspora bi lañ ne ñu bàyyi ñoo suñuy participation yi nga xam ne ñoo ko jël en charge di xéewal yi mais ñoom dañ ñëw ñu participer ñoom it soxnay Dakar yi di participer comme ñun moo xam vingt mille moo xam trente mille moo xam cinquante mille si jaayante bi nga xam ne def nañ ko pour xéewal yi parce que alalu sëñ Touba bu xasee ba dugg si compte bi ñoo ngi jaajëfal suñu jëwriñ Cheikh Habiboulaye Mbacke di ko ñaanal Mbacke lool mu yàgg fi te wër moom mi ne woon ku ma de murit mu defal ñu deux milliards par weer ak di defal ñu vingt quatre milliards ñu ànd liggéeyal sëñ Touba si dëkkam bi ba mu mel ni kanam bu xasee ba dugg du génnaat dafa mel sàngara si moom

nañu jaayante ak Serigne Touba ci suñuy dëkkandoo suñuy am di jamm suñuy daayira yi nga xamna xamne xamnañ len yaatu liggey Serigne Touba bi ci bi Dakar mo indi wax ji mo indi ñu ko jangate rek di wax ne kenn du Serigne Touba parce que murit dama naan kuy murit rek lo am yene woo ko kenn moy Serigne Touba ñu suñu xey suñu guddii suñu lepp Serigne Touba lañ ko jébal ba tax na nag ah ñu fas yéene di liggéeyal rek ci dëkkam bi bay jéem wut rek ci 2 millions de murid yi nga xamni ñu fay wax ñoo ngi ñaan ci barke Ahmadou borom jaam yi ñu fas yéene fa yegg rek waye di jaajeufal nak soxnay diaspora bi limay wax tout temps ben lam ku yëngu bu doon sama jëm ji man kessé li du am waye mbolo moy doole ñi ma andal ni ak ñeneen mo xam ñi nekk fi ak ñi nekk ci diaspora bu ko téwé li té ñëwuñu ñom ñepp ñong leen di sant di leen gërëm bu baaxa baaxa baax waaye mention spéciale soxnay diaspora bi yep yep yep wax fa dëgg yàlla mention spéciale waa Dakar waaye mention spéciale waa Touba di jaajëfal nag suñu jëwriñ bàjjen Bintu Mbàkke bi nga xam ne mooy jëwriñu Touba sa kanam yëpp nag di jaajëfal soxna Ndey Jóob jannatu di jëwriñu Touba sa kanam soxna yi wax dëgg yàlla buñ leen tuddee rek ñu yóbbaale mboolem soxna bu nekk fii ak diaspora bi yëpp di wax ne xol daal